salaamaaleykum salaamaaleykum di la wax ngeen continuer di abonné ci seen YouTube Diaw américain borom American business ñu ñëw ci li nga xamante ne moom moo di liste élection législative yi gis nañ liste benn Bokk Yaakaar génn na Aminata Touré gis nañ liste Yewwi Askan bi génn na ki nga xamante ne ni tamit moom moo di Ousmane Sonko mu sell mi moom moo ko jiitee mais bu ñu xoolee coalition Wallu Sénégal muy parti démocratie sénégalais bu Maître Abdoulaye Wade suñu jàmbaar ji coalition ben, coalition yewi askan bi ci département muy lu am solo coalition qui coalition bu mais man liste yi dafa am ben enjeu bu ma ci gis côté parce que Mimi Touré am yu Mimi Touré 2014 lañ mu tête de liste Dakar ñu ko Macky Sall ko tête de liste élection législative mom premier bi majorité bi mun na président assemblée nationale muy première fois bu jigen jiite assemblée nationale ci sama xalat bu gàtt quoi ci sama ay adu gàtt deuxième bi moy su fekkente ni perte na moy c'est la première fois opposition bi jiite li nga xamantene mom modi assemblée nationale am fa majorité c'est la première fois bu fekkee Mimi Touré perte na Mimi Touré troisième bi moy que bu fekkente ne perte na Macky Sall moom mooy tàggoon ak mom da kay dàq te day dé ci politique automatiquement parce que 2014 si nous la falé nga jité nous ñu dóor la fi ñu la ci poste premier ministre bi dàq la nga bo ñing lay dogo gisat nga ñëwaat nga ñëwaat bi nga ñëwaaté ñu nous la nga tête de liste Benno Bokk encore nga ñëwaat dem élection législative ñu dooraat la moom mooy kooku tàggoon ak yow parce que ki la dàq ci perte élection locale boo boo boo boo pertaatee ci li nga xamante ne moom moo di législative moom dañ leen di tàggoo loolu jàpp naa ko moom. mais nag bu fekkente ne nii Mimi Touré gagné na mooy première fois président assemblée nationale muy jigéen bu fekkee perte na mooy première fois opposition bi gagné li nga xamante ne moom moo di. Euh, Euh, majorité assemblée nationale mais nag élection bii war nañ ci mën a am ay ay député yu am valeur député yu xam li sénégalais yi bëgg di leen ko waxal parce que pencum ndaw réew ma yow yaa fa toogal sénégalais bul nekk député kii wala kee nekkal député de peuple peuple bi mooy que ngay wax soxlay peuple bi dund bu seer bi euh, njàng mi faj mi yëpp nga ciy wax te bañ a nekk député député di di diw loolu baaxul te jàpp naa ne nag Euh, coalition yi ma gis euh, soit euh, ma Bougane Gueye Dany wala Pape Djibril Fall wala waa ñoom Thierno Alassane Sall ñooñu noonu ay député yaa ay nit lañ yoo xam ne yu am valeur lañ surtout Abdourahmane Diouf ku ñu naw loola parce que discours am macha allah macha allah léegi nag yeewi wàllu mun nañ indi lu rëy rëy fii Sénégal lu fi musul am. dina garaaw nag dina dina dina dina garaaw trop coalition boobu bu ñu àndoon lépp nekk benn lay gën a lay gën a neex quoi lay gën a lay gën a neex mais comme ñoom xalaat nañ ci département yi war nañ mën a ànd ah nañu ànd rek mais sax après loolu yëpp su jàllee nag nañu dimbale ngir yàlla nit ñi senegale yi dund bi dund bi seer na dëkk bi metti na nañu yërëm sénégalais yi taxawul leen ci seeni jàmbat bu ñu fàttee sénégalais yi ak pal lu mu neex neex élection yi di jëw dee leen xalaat dundu sénégalais yi ngir yàlla war a suuli bàyyi leen politique bi tuuti te jublu ci yitte sénégalais yi et ce gars yi continue di abonné ci seen YouTube Diaw Américain borom American business peace and love